TMS TV. di zoom kanam gi yeewu nañ ko yeewu nañ ko gis ngeen suma jinne yeewu nañ ko gis nga xalu général jinne yeewu nañ ko waxuma dara waxuma dara mais gis nga jinne yeewu nañ ko jinne yeewu gis ngeen gis ngeen jinne tiim nañ ko sama jinne ndax xalif général day jinne sama jinne yi tëm ko mbokku julliti mbokku taalibe yi gis ngeen gis ngeen laalu ma ko sax waxuma sax joxewaguma ordre mais jinne yi gis ngeen gis ngeen xale bu jigéen bi gis ngeen jamais vu jamais vu jamais vu jamais vu gis ngeen eh na jóg na jóg na jóg na jóg na bu mu tëdd na jóg toog na jóg ko bloqué ko foofu jinne yi eh bloqué leen ko foofu bu mu tëdd na jóg bu mu def bloqué leen ko foofu nangiram bloqué leen bu mu laal suuf eh bu mu laal suuf na jóg jóg yëkkati leen ko yëkkati ko yëkkati ko mu toog yëkkati leen ko ah c'est qui c'est qui yow la kan bindi lool gis ngeen ko moo ngi jóge ba ginnaaw Lagros yëkkatil mos naa dem dëkk boobu Lagros ah c'est qui ah yow la kan yow la kan yow la kan kër naka Modia. Ah? kër Bala kër Bano. kër Bala waaw. ah boobu mos naa dem. Mhm. mos naa dem ba foofu nuyonte. kër kër Bala. ah c'est mbokku jullit yi mbokku taalibe yi yéen a ngi moom Kër Massar lay sëy. ah ah. Daaru Michel la doon sëy. faw faw lu foon naa nge amaru yow hiir naa faw fawlu fof nangue amaru yawhir nangue ina laaha ana laaha billi baati basiron jinna mono koɓe tolote gue talate gue allah kantan annabi kantan ley uddi dow uddi hakkude nden jidi kiɗon kod jinna mono koɓe allahn kan tan annabi kan uddi dow uddi hakkunde nden jidi kiɗon kojjinna kiti saya boloya saya kiti saya boloya saya wonande allah saginande allahu hulu allahu samalu alfayu jayri alfayu batino kurjinna sojinna olde kono nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna so sojinna kiisi kaasa koye kaasi samse samaruusi saamsi samaruusi jinna jinna yeewal leen ma ko jinne yi yeewal leen ma ko yeewal leen ma ko yeewal leen ma ko yeewal leen ma ko jinne yi haɓɓe mo nangee mo haɓɓe mo nangee mo yeewleen ko yeewleen ma ko jinne yi yeewleen ko yeewleen ko yeewleen ko jinne yi haɓɓe mo nangee mo haɓɓe mo nangee mo jinna haɓɓe mo yeewalleen ma ko jinne yi yeewleen ko yeewleen ko yeewal leen ma ko jinne yi yeewal leen ma ko yeewal leen ko jinne yi xàppee moo nangee ma xàppee moo nangee mooy jinne yeew leen ko yeew leen ko yeew leen ko jinne ki doon kot leen ko yeew leen ko yeew leen ko jinne mënoo ko bi yeewal leen ma ko jinne jinne ana jinne bu ma tuddee suma tur man man bëri na ay jinne yu ma tuddee Thierno Moule de ana Thierno Moule ana Thierno Moule ana jinne Thierno Moule ana jinne turandoo Thierno Moule Thierno Moule ana ngeen jën na ana Thierno Moulé ana ngeen ana Moulé Moulé ana ngeen Moulé Moulé jën na Moulé Moulé ana Moulé Moulé Moulé Moulé jën na Moulé Moulé ana Moulé Moulé ana Moulé Moulé ana Moulé Moulé jën na boloke boloke Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé jën na boloke leen foofu boloke leen foofu boloke boloke Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé Moulé jën na mënoo koo bi nee na dafay tëdd di gént sirène léegi nag dinañ laaj ba xam ban façon jinne la nee na muy tëdd di gént lu mel ni golo tamit te fekk nekkul golo du am jàmm ah, ah. waaw Fada kaay laaj kaay laaj ma ko ma ñëw wax tey leen ma ko gëmmee sax su ma gëmmee sax damay gis càkkandeer bu bëri. wóor ma wóor ma wóor ma wóor ma wóor ma lool. léeg-léeg damay gént ay jaan. Mhm. ci biir ndox léeg-léeg damay gént ay golo mhm. te du golo. Mhm. jaaxal na ma trop daw naa ba bugg dee yaakaar ma kenn kenn mu ne maa gën a yàlla maa ngi gën a woon. dama jàpp kan maa ngi gëwantu loolu. moom. jéy na ba uh-huh. moo koy gént mooy da koy géwantu day gént waaw ay sirène ay kirène ak ay golo uh-huh. waaw ay golo ak ay kii xaj sax da koy gént yenn saa yi hmm. yenn da koy dàq yenn saa yi hmm. naan daf koy màtt waaye nag du ko jot a màtt waaw hmm. du ko jot a màtt da koy gént dama ko wax man de leen jaaxal na ma léegi nag ñi seetaan youtube bi sama doom bu góor magam bu góor bi ma fi yebal moo doon seetaan youtube ba gis ceerno mu ay jëfam mu woo ma mun ma yaay mën a mun dal nañ ba sonn man de yaakaar naa yàlla yaakaar naa ceeb mu dem kaay nga yóbbu fa jënd ba démb 10 heures ci guddi lañ egg si fii ci kër gi léegi nag ñu ne moom bu liggéey àjjuma bi man xam naa du liggéey àjjuma bi mais ngir yàlla ak bu ko teel a gis moo tax ma fanaan fii ndax lii ba mu nekkee ci moom yàgg na wala. yàgg na ci moom de yàgg na ci moom mais bu ko commencé daane ak léegi ñeenti weer rek lay dem tolloo. Mhm. yàgg na ko commencé trop mais nag daaw ko feeñal parce que da doon nit moom ci boppam daaw toog ci biir nit ñi day mer loo xam ne kenn defu ko dara ñu naan dina ba dafa réew dina ba dafa sob nanguwut a wax ak nit ñi ndekkee yow lii moo nekkoon ci moom. ma waxee ma ne ah wallaay xamul leen li nekk ci jéem ba jéem ba dee xam naa ni ma ko mhm. de ñu ne ma ah kay dafa réew dem na ba fi muy sëy sax di ko doon jël di xam ne ni dañ koy xaw a mere waaye nag biñ seetee ba ci biir xam nañ ne ñëpp lii teyu ko nekk lu mu tey léegi ñëpp ak may jàppale ñëpp ñu ngi ci jàpp ba mu dëgër wax dëgg yàlla gorob sama mag la waaye moom tam mu ngi ci jàpp ba mu dëgër moom doomam yëpp ñu ngi ci jàpp bu baax waaw doon na ko toog yaakaaruma kenn nag mu ceeb la mu leen na ma dimbalante yàlla tax sama doom yi yaakaar naa yàlla yaakaar naa ko mm-hmm. waaw waaw euh, jërëjëf yaay rek kon xam naa ñu bàyyi sëñ bi rek euh, euh, bu fekkee ni sëñ bi am nga kàddu yoo ci sànni yow tamit ñu jël après mu tudd. Moustapha Ba. Moustapha waaw sëñ Moustapha. dafa yow tamit yaak maire bi yéen a ànd andi fi waaw ñun ñoo ànd maam moom ñoo ànd indi fi kii. Mm-hmm. démb affaire yi daf ko sonaloon trop. Mm-hmm. mais démb bi ñuy waaj pour indi ko fii. Mm-hmm. moom dafa bañoon ne du ñëw. ba bi ñu dem ci yoon bi sax daf ne ma mu ngi nii naan ma naa dëpp naa ñibbi ma ne ko nañ forcer dem. looloo indi sax ma ne sama yaay moom kese bu mu ñëw ndax xam naa kii nu mel ah, mun na dugg ci oto mu sonal ko ma ne ko nañ ànd man suñu àndee mun ko encadré te en même moom suma xarit la mun nañ di waxtaan mu koy defal dalal xelam mais d'après bi ñu ñëwee depuis démb bi ñu bi ñu bi ñu ñëwee fii affaire yi sonalu ko ko sonalu ko ko noonu mais comme nii moom mu ngi koy sonal mais euh, Cheikh Thierno Moule moom ñun am nañ ci moom yaakaar te man bi ñuy ñëw dama ne ko am naa certitude am naa yaqin bu wér ne suñ demee mu deñ ndax yàlla dafay may te yàlla mayam mayam dencalut ko kenn da koy jox jaamam bu ko soob rek la koy jox te gëm nañ ne mayam yàlla yàlla jox na ko na mu Moule Sow ndax gis nañ ay audio man gis naa ay audio yoo xam ne suma mag bi won na ma ay audio yoo xam ne bi ma ko seetaan dem bi ma ko wanee rek dama ne ko grand kii ñun ñëpp sax dañoo war a jug faagu dem fi moom nekk ay taalibeem ndax gis nañ li muy def nii te lii du nekkul loo xam ne pan hasard la ku ku koy dégg nii sax dangay ngay foog boo koy seetaan nii bu la yàlla dimbaliwul da nga naan lii du dëgg ndax man su ma mag bu jigéen seetaan na ko su ma mag bu jigéen bi mu ko seetaan bi ñu waxee ñu ne ñu ngi ñëw fii daf ne non non bu leen dem ndax kooku nangam nangam et cetera et ma ne ko non bi man bi ñu ma ko man leen bu leen gëm loolu ndax nit dangay am ngëm-ngëm dangay am ngëm ci mbir rek nga dem nit bul sikki sàkk bul wax ne ma diw manul nangam neel man manu ma waaye kenn manu loolu ku ku loolu ku maanu du ko def man bi ma ko waxee man maa leen gën a obligé sax gën a forcé démb wala li na leen nañ leen dem même bu fekkee dañ fay fanaan sax nañ dem nañ ko jaayante rek dem moo tax nag wax dëgg sëriñ bi ñun am nañ ci yow yaakaar loolu di ñaan nga nga dimbali ñu ci te am nañ ci te wér nañ ñu wér wér na man de wéral na ma wér yàlla aw ma ci benn sikki sàkk barki Maolana Cheikh Ibrahima Niass aw ma ci benn sikki sàkk ne danga koy dindi man loolu wér na ma man aw ma ci am ma ci benn sikki sàkk loolu moom am naa ci yàqin bu wér salaamaaleykum waaw waaw sama bi mu ni mu ni la moo tax la moo tax mu ni mu la bu leen ñëw fii quoi sama boobu waaw man d'après bi ma waxee bu ñëw fii moom dafa yuuxu ne bu leen ma yóbbu fenn dew ma fen mais après am na beneen beneen femme bu nekk ci kër ga ah. femme bi moom dafa xaw a amee dafa amee ay rab mhm. Mhm. moom bi bi kii daanoo moom dafa daanu mais bi mu daanoo mhm. bi mu kiiwee daf ne sirène day dee sirène day dee tey après ñun bi ñu ñëwee fi démb ci guddi sànq ci suba gi sànq ci suba bi ma woowee sànq ci suba gi bi ma woowee kii ñaareel bi ma woowee sama aaw grand bi bi ma ko woowee daf ne ma kii daanu woon kii daanu woon démb dafa ne kii rabu booy bi la gis mais bi mu gisee rabu booy bi rabu booy bi dafa am doole ba moom rabam bi dafa mbo rabu rabu sama mag bi dafa dàq rabam bi bam mu daw mu bugg a jaxase kër ne day màbbal kër gi mm-hmm. mais moment boobu nag fekk man yàlla def na maa ngi doon jàng ayatul kursi ndax xëy na xam ñun suñu xam-xam bëriwul ci yooyu maanaam kan la rabam bëri doole kii wala ki nga xam ne moo ne ci kër ga kii la rabam bëri doole ki nekk ci kër ga moo gis rabu kii hmm. mu ne rabu kii dafa dàq ji rabam moom ba rabu kii ne day màbbal kër gi bi mu ne day màbbal kër gi mu ne day kër gi ndax moom xam na ne day dee mais bu dee bu génnee dina duggaat ci kii hmm. moom mu ne moom xam na mu génnee dina duggaat ci kii hmm. léegi nag loolu moom sëriñ bi ñu la ciy ñaan nga gën ñu cee dimbali nga gën ñu léegi bi loolu amee nag ci lañ xam ne kon kii kooku moo koy teree ñëw bi mu waxee bi mu waxee loolu ci laa xam ne kon raba même moom sax def ne woon bu leen ma yóbbu fenn man daw ma fenn fii laay toog daw ma fenn femme bi loolu lañ doon wax ma fenn fii laay toog ci kër gi laay toog mm-hmm. waaw loolu moo tax loolu moom gën leen ñu see mu gën ñu see jàppale lu gën kii incha allah yaakaar naa ni loolu leer na waaye comme ñëw ngeen fii ci kër xalifa général incha allah bu soobee yàlla na seen xel daal waaw dégg ngeen lu ñu wax euh, te fu mu nekk nii jinne baa ngi ci xale bu jigéen bi ba léegi gis nga xool ko xoolal tournel tournel nga filmer ko jinne baa ngi ci gis nga fu mu nekk nii jinne bi instant bi génn bu mu ngi ci xale bu jigéen bi ba mu nekk nii ngeen di gis nii ba nekk nii jinne baa ngi ci xale bu jigéen bi instant bi jinne baa ngi ci waaw léegi nag ñu fexe euh, laaj fexe laaj jinneem bi ñu xam lan moo tax mu dugg xale bu jigéen bi ak lan mooy problème bi c'est important parce ko defee ñu doog a waxtaan ñu xool na lañ koy faje ci kattan suñu borom waaw fow fawlu funnaange amaru yaw hirnaange fow fawlu funnaange amaru yaw hirnaange inna allaha jinna wono koɓi tolotegue talategue allah kanta annabi kanta ley uddi ɗo uddi hakkude nden jiti fiɗon kod jinna mono koɓi tolotegue talategue allah kanta annabi kanta ley uddi ɗo uddi hakkude nden jiti kiɗon kod jinna jinna attaqué à procès attaqué à procès jinne suma jinne yi attaqué à procès attaqué à procès attaqué à procès attaqué à procès attaqué jinne à procès attaqué à procès jinne attaqué à procès attaqué à procès jinne nangee mo attaqué jinne yeewal leen ma ko jinne yi yeew leen ko jinne jinne moom na wax moom la kan dama dafa dama bëgg mu wax moom la kan ak fan la jóge junna vas-y junna mesan mesan mesan mesan junna mesan mesan mesan mesan mule junna mesan mesan mesan mesan junna junna mesan mesan mesan junna mesan mesan mesan mesan mesan mesan mesan mesan mesan junna

saginande allahu wonande allah saginande allahu allahu la kenn du toog foofu bii hulu allahu saman alfayu jayd alfayu batino kurcinna sojinna oyɗo koro nabi yanna nabi ndure ndurete sojinna to sojinna kiisi kasa koykaasi saamsi samaruushi saamsi samaruushi saamsi samaruushi jinna saamsi samaruushi saamsi samaruushi saamsi samaruushi jinna xoj leen ko xojal leen ma ko jinna yi xojal leen ma ko xojal leen ma ko jinna yi xoj jinna xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj jinna xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj xoj jinna xoj xojal leen ma ko jinna yi xojal leen ma ko jinna yi xojal leen ma ko jinna yi attaque approché attaqué approché xot xot xot xot xot xot xojaleen ma ko jinne yi xojaleen ma ko attaqué approché jinna attaqué approché attaqué approché jinna attaqué approché attaqué approché jinna attaqué approché attaqué approché attaqué approché attaqué lu mu def noonu hé loolu def noonu ba bàyyi c'est qui yow la kan mën nga wax wala munoo wax yow la kan c'est qui hein c'est qui hein yow Tavlakan. Yavlakan. Gambie ñooy wootu noonu yow la kan yow la Dieynaba man. Dieynaba Ba. yow la kan. moom nu mu tudd. Dieynaba la la kan. yow la kan. faw faw lu fun naa nge. amaru yow xiir naa nge. analaaha billi baati basiran jinna ko gannaaw day bañ a wax ngeen sonal ko jinne yi gannaaw day bañ a wax ngeen sonal ko jinna fawfawlu funnaange amaru yawhirnaange inallaaha analaaha billi baati basiran jinna mono ko be tolotege ta laateke allah kantan annabi kantan nden uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kidon korjinna mono ko bi to looteke ta laateke allah kantan annabi kantan nden uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kidon korjinna mono ko bi to looteke ta laateke allah kantan annabi kantan nden uddi dow uddi hakkunde nden jiddi kidon korjinna mono ko bi to looteke ta laateke allah kantan annabi kantanga hey udde dow udde hakkunde nden jiti kidon kod jinna kidon kod jinna atake aprose atake aprose atake aprose aprose aprose jinna attrape attrape attrape jinna monokobi tolotege talatege allan kanta annabi kanta ley uddi dow uddi hakkunde nden jiti kidon kod jinna mënoo ko bi tolo tege tala tege allan kantan annabi kantan le uddi dow uddi hakkunde nden jidi kiɗon kojjinna mënoo ko bi tolo tege tala tege allan kantan annabi kantan le uddi dow uddi hakkunde nden jidi kiɗon kojjinna kiti saya boloya saya wonande allah allahu hulu allahu samaru alfayu jayre alfayu batinu kurjinna coojinna oolde koro yanna nabi yanna nabi dure durete soojinna so soojinna tiisi kaasa koye kaasi saamsi sama ruusi saamsi sama ruusi jinna sama ruusi samsi sama ruusi samsi sama ruusi sama ruusi sama ruusi sama kan yowla jeenaba xool ma fii xool ma ci bët wono ko ɓe tolote ge talate ge allan kantan annabi kantan ɗi udde dow udde hakkunde ɗinji di kiɗon kojjinna kiti saya buloya saya wonande allah saginande allahu kulu allahu samadu alfayu jeyri alfayu batino kurjinna sojinna ulde koroyanna nabi yanna nabi nure nure te sojinna so kiisi kasa koy kaasi sa am si gis ngeen jinne baa ngi fi day day daw ak a ñëw ngeen sànq lu mu def instant bi nii nii nii bi moo ngeek moom fu mu nekk nii jinne baa ngeek moom nii fu mu nekk nii nekk nii moo ngi ci moo ngi ci xale bu jigéen bu carrément waaw léegi nag moom fii moom boo leen ñëwee fii moom dëgër bopp bi fii lay yem bu soobee suñu borom. TMS TV.